muy Jirnda Bassoul ak Jonwa yàlla def aussi ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xamante ne ñëw nañ teewee jotaay bi si njiital monsieur le maire le président de la chambre de commerce de Kaolack monsieur Serigne bu di ko gërëm di ko jaajafal di nuyu aussi ñi nga xamante ne mu ñooy imaam yi ak chef de village yi fi teew ak délégué de quartier yi jóge Kaolack ñëw bokk ak ñun liggéey bi mais di bëral nuyoo aussi suñuy mbokk ñi nga xamante ne ñoo jóge Kaolack ndangaan te seen origine di île du di nuyoo aussi mboolem waa presse bi ci mobilisation bi mais di sant yàlla bu baax di wax ne buñ fi ñëwee dañuy sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa mais ñaanal ki nga xamante ne mooy xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass buñ ko ñaanalee rek yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér ñaanal nañ booleem famille Cheikh Ibrahim Niass mais di béral aussi ngërëm ak cant seen rakk di suñu xarit suñu sëriñ Cheikh Babu Aboubacar Ibrahima Niass mbay Mbaye si bi nga xamante ne yàgg na di contribuer ci convoi bi di boole waa il bi autour d'une association bu tudd Gandoul Baye Niass di wax ne tey nag buñ fi teewee dañ fi teew en tant que jullit teew fi en tant que taalibe teew fi aussi ànd ak suñuy mbokk waa Kaolack monsieur le maire Serigne Boubou recevoir ñu recevoir bu rafet loolu da ko yàgg di def parce que waa île bi dañoo sori mun naa wax ne île bi njëkk mooy par exemple Niodior ñi fay jóge mbaa waa di ñëw ba fii dinañ def dix heures de temps si yoon bi donc moo tax bu ñëwee ba Foundiougne dañuy xaarante doog a def convoie di ñëw yàlla def aussi ci lu rafet li nga xamante ne waa chambre de commerce ñun ñu ko doon defal si accueillir pèlerins yi restaurer leen à l'arrivée am na ay nouveautés yu bëri yoo xamante ne yokk na si li si yokk aussi mooy ñoom lépp loo xamante ne accueil la bâche chaise sonorisation équipe boo xamante ne dina encadrer pèlerins yi ñoom mettre nañ ko à notre disposition leneen li am solo mooy toilette leneen loo xamante ne war nañ ko rénover rek rénover nañ ko pour xaar pèlerins yi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax mais beneen nouveauté bi nga xamante ne am na si daaw bi ñu fi ñëwee dañ doon joytu ne bëgg nañ état bi taxaw pour sécurité pèlerins yi ndax ñun maire yi ñun ñoo doon organiser wu xool ñoo xamante ne dinañ assurer seen sécurité mais du doon ay spécialistes yàlla def ren ñu bind le chef d'état-major des armées jaarale ko ci zone militaire numéro 3 ci colonel bi bu Kaolack moom mu taxaw ci ay jéego yu rafet taxaw si dépêché li nga xamante ne mooy huit vedettes yoo xamante ne def ko équipe def ko équipé ba pare dugal si ay militaires ay agents am boole ñu ak le commandant fay bi nga xamante zone militaire numéro trois la ak commandant bi nekk si euh, zone bi nga xamante ne mooy Foundiougne ñu ànd ak seen équipe ànd ak waa gendarmerie ànd ak sapeur pompier dugal si sécurité dugal si secourisme mais aussi dugal si li nga xamante ne mooy santé ñu gunge ñu jógee Foundiougne di ànd ak ñun di ànd ak ñun di ànd ak ñun ba ñu egsi fii Kaolack loolu nouveauté bu bees la ñu ngi leen di gërëm di leen sant leneen li nga xamante ne am na solo ñu bindaat aussi ki nga xamante ne mooy madame le ministre de la pêche et de l'économie maritime xamal ko ne waa il bi seen trajet dafa gudd te li ñuy am si ay pèlerins mu ñuy am ay gilets yu toll noonu mu efforcé wu jël on lot de 2000 gilets jox ko insulaires yi ñu jël gilets yooyu yóbbu ko ba si île ba dëkk bu nekk mu ñu wàccee sa loo nee la nag sa pe sa pelerin balaa kenn dugg si gaal bi na sol jileem moo tax gis ngeen image yi nu mu rafetee ñëpp ak sol gilet loolu moo tax ñu ngi rafetlu bu baax a baax geste bi nga xamante ne madame le ministre de la pêche et de l' économie maritime def na ko. ñu xamal leen ne nag ñun bu ñuy ñëw fii dañuy ñëw pour ziyaare si mais dañuy ñëw pour ressource wu parce que bu ñu fi jógee ku nekk da ngay ñaan fekkee déwén mais da ngay ñaan lépp loo nekkee woon. muy lu baax yàlla yokk ko lépp loo xamante ne ko nga ko ngir dimbale askan bi yàlla yokk ko moo tax aussi dañuy sawar di ñëwaat boo gisee gaal yi ay gaal yu bees kese la li ñuy def mooy gaal yu bees yi ñëw ren balaa déwén da ngay gis ñoomin kay képp ku nekk ngay rawante noo fexe bi am gaal bu bees pour mu bokk ci convoi bi loolu xam nga contribuer na déjà ci développement île bi loolu moo tax convoi bi du lu ñu war a caaxaane lu ñu war a taxaw la may euh, jël occasion bi pour lancer appel état du Sénégal wax leen ne ñu ngi taxawu waa île bi mais bëgg nañ ñu gën a góorgóorlu lan moo ko waral dañoo tëraloon un programme de désenclavement fluvio-maritime yoo xamante ne île du Saloum yëpp war ko waruñ def mu waroon na ànd ak ay bateau yoo xamante ne dañuy am sécurité ku fa nekk buy taw buy ngelaw doo ko yëg ànd ak aussi ay barge parce que am na tonnage yoo xamante ne mu ngoo ko dugal ci gaal il faut nga dugal ko ci bateau bateau yooyu prototype yépp génne woon nañ ko ci programme bi validé woon nañ programme bi donc ñu ngi ñaan état bi mu accélérer programme boobu pour que déwén incha allah bu ñuy ñëw fii gaa dina am ñu jël gaal mais comme ci période nawet lañ nekk dina am di ñu dugg ci bateau yi mun a am sécurité bi nga xamante ne moom lañ bëgg ñu gën a ñaax aussi état bi ci désenclavement des îles du Saloum île du Sénégal la bokk désenclave programme de désenclavement yu bëri dañuy jël en compte les routes et des pistes de production mais duñu jël en compte des ponts de franchissement te ñun ay pont lañ soxla moo tax ñuy wax état bi ne nañ si gën a taxaw ba pont yi nga xamante ne war nañ ko def diggante dëkk yi ñu mun ko defar ba nga xamante ne xale yi di jàng di traverser mbaa échange économique yi di am ñu mun ko développer ni nga xamante ne noonu la waree. mais leneen li may waxaat mooy ñu accélérer le programme le programme d'électrification rurale yi nga xamante ne mu ngi si îles yi ndax am na îles yu bëri yoo xamante ne amaguñ courant ba léegi ñenn ñi seen centrale yi ñu amoon. yàqu na donc war nañ def un nouveau programme boo xamante ne Sénélec mu ngi koy dox mais dañu ñaan état bi mu taxaw si accélérer ko au grand bénéfice des populations insulaires gannaaw loolu ma gën a gërëm ñi nga xamante ne mooy association gandul Bagnès bi nga xamante ne mobiliser wu nañ ànd ñoom ñëpp doon benn say lii day wane ne mbooloo mooy doole ñu ngi leen di encourager ñu gën a góorgóorlu gën a renforcer suñu relation ak suñu kër diina mooy Medina Baye lépp luñ fiy def ñun pare nañ pour def ko si démb rek lañ fi jóge ñibbiwaat pour mun a bokk si convoi bi indi woon un million deux cent deux mille pour contribuer ko si li nga xamante ne mooy préparation gàmmu gi xam nga ne képp kuy jël ay gaal jënd ay essence def ko si ba pare di xalaat yëkkati valeur boobu di ko yóbbu sa kër sëriñ kooku taalibe la kon moo tax maa ngi ñaan lu bi il bi